Khalifa Sall jubóowuñu ñi ngi rayante Bass ko bëgg suul xam nga moom mi taxaw na fi ne bu ñu tëjee Khalifa Sall dañ may tëj bañ tëjee Khalifa mhm. Sall kenn gisu barki Dembo Ndiaye si conférence de bi voilà ak yu baree bari yoo xam ne yëpp mi ngi xam ne patt ne patt jàpp suñu jàmm ak yoo xam ne nit ñi xamuñu ko ci palais bi di dugg di génn la veille des mhm. élections bi ñu bëggee éliminer Ousmane Sonko ne Pastef du am candidat mhm. li nga wax ñun dañuy wax Ousmane dafa xam lépp Ousmane Ousmane lu mu def xam na ko dafa am il est extrêmement renseigné lu mu def rek am na information toog nag ànd ak Ousmane Sonko jàpp ne Ousmane day tay la projet bi mën na la koo jox wala mu jël sa candidat jiite ko candidat boo xam ne bi nga ko indee kenn xamuñu ko munta mhm. am 3 pour cent mhm. Ousmane Sonko jël jomaay mi teg ko jomaay génn pour cent nga di ko tëkku naan ñu ngi dem ci ay élection nañu dem ci ay élection réew mi tant que mënuñoo supporter tëkku yi ñu nit ñi di tëkku du ngi dem fenn il faut que ñu àndandoo def bloc tabax réew mi ci njub jubal jubbanti seen yooyu ñu nekk teg ay dil Macky Sall nga yor téléphone am di woote mi ngi wax ak ñoom ñi ñëpp pour teg ay coalition mais seetaan leen dañuy xoolal ñoom mille liste la ñuy am du ñu am benn liste parce que xam nañu leen li ñu def yàlla taxul bëgg réew mi jag taxul yërëm sénégalais yi taxul seen ay intérêt bopp seen ay avantage seeni i climatiseur rek seen i kër rek seen i gàngo rek seen i doom yu ñuy préparé pour ñu remplacer leen parce que li ñu nekk mooy boo ku ki nekk boo dee sa doom lay remplacer ñun Sénégal la ñuy tabax waxuñu ay famille ki ay ngay dee sa doom nekk ci sa système nekk ci sa teraanga ak ay mafia yoo xam ne état moo ko war a dundal loolu mooy jeex ci réew mi alalu réew mi day dellu ci askan wi ngeen jéggal ma continuer. wax nga dëgg eh, loolu moo tax fi ñu toll nii ñoom ñu ngi jéem a créer seen benn coalition ah. ñoom ne xalifa xalifa mu ngi négocier fi ñu toll nii. Ousmane Sonko wax na ko ci déclaration bi mujjee def nee na bépp gox bu waaye nekk même su fekkee ne da ngay fekk ci Pastef ka représenté Pastef sa gox boobu demal nga topp si ginnaawam. demal nga topp sa ginnaaw parce que xam na ne ñuy ñëw ñëpp intérêt moo leen fa indi intérêt lañ mooy moo leen di indi kon nag ka représenté Pastef sa gox boobu demal nga topp ci ginnaawam. juñu ne leen ko de. junj ne lañ ko ab ku mën a négocier rek junj ne lañ ko waxi sëriñ bi nekk eh, du ma ne sax waxi sëriñ bi waxi waa Pire yi nii bu leen ko bàyyi bàyyi ngeen koy jàppee loo xamante ni eh, eh, du dem fenn fi mu waxee dafa public fi mu waxee public la waxe moo tax na nañu jóg défendre wax ji Ousmane Sonko képp ku ko xam nga xam nit ku baax moo nekk noonu nit ku am kiyaan moo nekk noonu nit ku nit ku bëgg doomu aadama moo nekk noonu. bu doon kuy fayantoo wala bu doon lu mu gis rek mu teg sa tànk wala kuy jàpp mer kon Ousmane sonk du ànd ak ñu bëri fii Ousmane Sonko du ànd ak ñoom si yeewee askan bi ba mu Ousmane Sonko lii xewoon si biir yeewu askan bi yëpp xamoon na ko lii xewoon si biir yeewu askan bi yëpp xamoon na ko mais dafa tegoon tànkam mais yàlla mi ko dooleel moo mu mujjee leeral lépp amul kenn koo xamante ne doon na ànd ak Ousmane Sonko te yàlla rek a tax amul. boo la doon cité ay benn benn rek lay doon si biir yeewu askan bi mais ñi si des ñëpp inter intérêt ñoo taxoon ñu doon ànd ak moom te ba ñu demee ba si kanam lépp feeñ na lépp leer na. lu tax lan moo tax liste titulaire yeewu askan yi 2022 ñu annulé ko lu tax. exactement. est ce que sénégalais yi xam nañ dañ ko fàtte. kan la sun koo defoon confiance ne ko defaral liste yi dem Casamance bàyyi ko fa Khalifa Sall. moom la Khalifa Sall mooy kii Moustapha Sy ne woon bu ñu ko tëjee dañu may tëjaale. Mhm. ñoom ñoo defar liste yi Mhm. lan moo tax liste ba am problème. mooma. lu tax liste ba am problème nit dañ ko fàtte lu tax liste ba am problème. mooma moo moo dañoo jël ab dañoo jël ab ab candidat ku ñu def ci liste ku bokk pur koo xam ne majeurul. Mhm. amul âge mun te nekk ci liste ñu def ko ci liste kan moo ko def lu tax ñu def ko. lan la xalifa Sall ak sëñ Babacar si mii sëñ sëñ Moustapha Seck ci biir coalition ba jël militant wu pur. bu mënta nekk candidat ñu dugal ko ci biir liste yi ba ñu éliminer liste ba Ousmane ko ca gore ga ñun ñëpp ñu mer dal ci kaw Khalifa lu ne Ousmane na cëpp jël avion wàcc Dakar def point de presse défendre Khalifa rafetal lépp te xam na lépp loo as gor mooy def loolu bu ñu tax wax continuer en tout cas daal nañu waajal élection yi nañu takkuwaat ba dëgër boole xol yi boole boole xol yi jàppante te liggéey. lii bu leen tiital de seen parti PUR bii bañ ko créé ak léegi ay centaine d'années la depuis maam Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum yàlla na ko yàlla dooli leer résultat bu résultat boobu tax nit ñi wax mosuñu ko am fii si dëkk bi amul benn état bu fi jaar amul ni Abdou Diouf la ñu njëkk a combattre Abdoulaye Wade ñëw ñu combat ak moom Macky Sall lañ euh, mook Macky Sall sax laale nañ amul benn état bu fi ñëw taal laale wuñu loolu yëpp suñu kanam la fii nii. bu dee jëmmu parti bi rek man tiituma ko message yi nag ne eh, bu leen ko xeeb bu leen ko xeeb lépp luñ si war a corriger nañ ko corriger buñ koy corriger nag nañ ko corriger en tant que parti pur bu ñu corriger en tant que sëriñ la ndax moom ba mu defee gàmmu gi ba gàmmu gi jeex la summi mbubbu sëriñ bi teg fële sol mbubbu politique. man sama sëriñ la de depuis deux mille un euh, deux mille ba deux mille six maa ngi si day ci Moussa si diine fu ne dem naa fa. wante lii buñ ko bay bayal nañu takkuwaat liggéey boo leen boo nekk benn élection yi nañu daan def te li bu ma sañoon jomaas yi mooy sonk sonk mooy jomaas si suñu profil yëpp na ngeen ko changé def jomaas yi def ko benn slogan boo xamante ni kenn mënu leen diviser changé leen profil yëpp kenn mënu leen diviser jomaas yi mooy sonko sonko mooy jomaas yi ñoom ñooy Sénégal man li ma jaaxal si doomu aadama tax mooy bii xeex bi di métti dëgg dëgg dëgg ñëpp ñu ne woon Sénégal la ñuy xeexal Sénégal la ñuy combattre suñu doom la ñuy su suñu sët yi la ñuy combattre mais yëf yi dem ba am sotti tey jii kenn ku nekk naan Sonko laa doon xeexal Sonko laa doon xeexal man loolu moom ma gën a jaaxal si yëf yi Sonko laa doon xeexal dafa ma war a recevoir Sonko laa doon xeexal dafa ma war a recevoir du noonu ñun réew mi lañ doon xeexal. xam nga dafa am loo xam ne kilifa du ko def. soo hmm. waxuma ne kilifa sëriñ de. Hmm. mais moom moom moom mooy président wu PUR non parti PUR moo ko jiite non ko jiite mooy président bi. voilà léegi nag ci ci léegi nag man foofu laay waxee parti pur boobu man foofu laay waxee en tant que président parti su waxee nit ñi dañ koy tontu Ahmed Khalifa Niass dafa yor parti ci parti am la wax dañ koy tontu fii ki fi wax ci politique dañ lay tontu ku bañ tontu la rek bul dugg ci politique politique boo waxee teg dañuy wax teg. dafa am loo xam ne nit du ko wax waxuma la sax Ousmane Sonko mi muy tuumaal waaye le médecin colonel Wade boobu muy wax moom kooku tey moo le médecin. chef du chef de l'État kooku mooy médecin traitant bu président de la République kooku muy wax naan ci njabootam la bokk xawma taalibeem la xawma du taalibeem xawma xawma parce que man damaa yàgg dégg ay wax yoo xam ne boo ko toppee après dara du ci am xam nga boo toogee ci langue politique di wax te nit ñi xam la xamati la nga yàgg wax loo xam ne bu ñu ko vérifier dara du ci am bokk na ci bu ñu tëjee xalifa tëj ma te tëjuñu la boo taxawee tey di wax colonel médecin boobu médecin colonel Wade bi nga xam ne moo doon surveiller Ousmane Sonko bi mu nekkee à l'hôpital principal nga taxaw tey di génne ay secret yoo xam ne un homme d'état un médecin colonel di génne ay yoo xam ne xawma am na xawma amul nga di ko wax kooku yaa ngi koy exposé te kooku mooy faj jamaay tey ki muy wax di ko tagg naan moo ko joxoon ndigal naan ko defal li dafa dégg naa moom mooy médecin jomaay nii nii nii mooy médecin jomaay mooy médecin colonel Wade colonel médecin colonel ñu nekk ci état nga toog bu fekkee xam nga état am na loo xam ne même bu amoon wóoru ma ne am na de li waxam ji mu wax ni mais même su amoon kilifa du ko wax maanaam tey kon li mu bëgg a wax mooy kaaraange jomaay sécurité jomaay wér-gu-yaramu jomaay mi ngi ci loxo taalibeem moom su fekkee colonel boobu taalibe moom moom loolu bu ko jomaay déggee jomaay mën naa dàq kooku sax mën na ne kon kii sax wóorul jomaay Sonko mën na ko mën naa wax ak jomaay ñu jële ko fa kon mi ngi exposé mi ngi yàq mi ngi mi mi mi mi c'est incroyable am loo xam ne ni ko am xel du ko def daal am loo xam ne nit da koy mais da koy nit xam ba ca mais soo mere lu la neex wax mere ak say mbokk mere ak ñëpp mais yow bu su ne yow mënoo ànd ak kenn koo ànd ak moom xulool mais bu yàggee nag ci dëgg-dëgg nag bu yàggee ñu taaj la nag ne la yow kes ce qui la ngeen jégal ma continuer. merci beaucoup am na solo ñu jox waaw ñu jox ñu jox ñu jox ñu jox njaga njaga ñëwal njaga njaga ñëwal. maaleykum salaam donc bëggoon see participer rek vite fait donc.